waxuma la nekk président waaye du génne sax prison man maa la ko wax waaw mu mel ni nag kon coono boobu moom la ñu jël teg ko ku mel ni sonk parce que la ma wax ca anniversaire ba ni jàmbaar la gor la moo leen déranger ak la ma tudd Pape Alé Niang moo tax dañu jóge ca anniversaire bi rek arrêté leen ñoom ñaar waaw boole ca Cheikh Bara Ndiaye waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen borom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rek kon xamuñu stratégie sax waaw mënu ko xamuñu sax stratégie waaw dan nga gis ay nit yu jóg te bokk ci yeewi yaaskan wi waaw ni dañuy seeti Sonko ca hôpital ba boo ko defee bu ñuy ñëwee mu daanu daanu lu crise waaw mel ni mënu wax parce que la ko intéressé wax na ko man ba noppi ko defee médecin yi nii leen ah dafa nekk dans le comment foog ngeen may ko ñu daal jógaat dem fekk moo ci bëgg loolu waaw bu ko defee kon nag yooyu yëpp ci lu ñuy nettali rek lay mujj man maa leen ko wax waaw ni jéem nañu tenter ba tey pour éliminer ko définitive xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw waaw te yaaya ngi nii seede ci man cheikh a ngi nii seede ci man léya ngi nii seede ci mais du xuloo waaw xëy na nag ku ne mën nga ñoo dëkkal fu ne naa nga gis sax ñuy bind xam république bu Sénégal ak liñ ko wan ak liñ ko dugal ci prison nga xam ni bu dul woon sunu fayda ak sunu taxawaay waxuma la nekk président waaye du génn sax prison man maa la ko wax waaw mu mel ni nag coono boobu moom la ñu jël teg koo ku mel ni Sonko parce que la ma wax ca anniversaire ba ni jàmbaar la gor la moo leen déranger ak la ma tudd Pape Alé Niang moo tax dañu jóge ca anniversaire bi rek ñu arrêté leen ñoom ñaar waaw boole ca Cheikh Bara Ndiaye waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen borom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rek kon xamuñu stratégie sax waaw ma ne ko xamuñu sax stratégie waaw dan nga gis ay nit yu jóg te bokk ci yeewu askan wi waaw ni dañuy seeti Sonko ca hôpital ba boo ko defee bu ñuy ñëwee mu daanu daanu lu crise waaw mel ni mënu wax parce que la ko intéressé wax na ko man ba noppi boo ko defee médecin yi nii leen ah dafa nekk dans le comment foog ngeen may ko ñu daal di jógaat dem fekk moo ci bëgg loolu waaw bu ko defee kon nag yooyu yëpp ci lu ñuy nettali rekk lay mujj man maa leen ko wax waaw ñu jéem nañu tenter ba tey pour éliminer ko définitivement xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw waaw te yaaya ngi nii seede la ci man cheikh a ngi nii seede la ci man lëya ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man waaw waaw ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla incha allah waaw ba na ko nag ah, mu ngi naaj kuur bi sax sorewul mais daara ji du jeex mais fii ñu tollu nii lii la réew mi laaj waaw nit ñëpp ngi jonguru li ñu gis def leen derange te ñemewu ñoo tudd ndax ay kilifa ñoo tax te ma xam ni boo ko bàyyee noonu ñoom itam ñu continuer noonu yaakaar bu tas boobu loolu baaxul waaw moo tax nag ma jël sama responsabilité parce que damay wax ni sunu boroom sunu borom du xuloo sunu boroom du xuloo day faj ndax day fekk lu mu ko wóor ni keneen mënu koo faj moom rek moo ko mën a faj mu faj ko et puis c'est tout mais du xuloo waaw. na nag ku ne mën nga ñoo dëkkal fu ne naa nga gis sax ñuy bind xam naa bu Mansour jóg jógee en tant que journaliste nekk ci leeral TV mu wax leen ko ndax dañu bind ci seen annonce ci suba. ni man damay chercher électorat bu sonk lu ma koy doyee man sama électorat benn tolluwul ni moom di kon lu may demeti pour wuti électorat bu bu Sonko mënul nekk moom bu ma soxlawul man duma ko soxla te moom xam na lool loo taxoon bi bi mbokk mi ñëwee ni ma Sonko moo yónnee nee na nga may ko ay kart pour gàmmu gi ma xam ne xam na ni foofu la intérêt nekk ma boole Cheikh ak oustaz Cheikh Sarr ne ko na leen wutal ay carte te wutal leen ay laissez-passer mu yónnee délégation bi muy yónnee ñu ñëw fii te bokkul ak délégation bi ñëw ci Yewwi Askan bi